ci invitation bi nga xam ni forum civil énergie ay ONG 3D ak USAID euh, def nañ ñu ko ci ñëw bokk ak ñoom ci waxtaan yi nga xam ni moom lañu fi sumb depuis démb te mu war a jeex suba ci li nga xam ni bii mooy njariñ yi ñu yaakaar ni war nañ koo mën a jël ci euh, wàllu euh, lépp loo xam day meññ ci biir suuf si té ñukoy koy jël moo rajan moom mom lay wax les ressources extractives manam buñ gën wax ci baat olof moom la wax ci mbell yi loolu solo bi mu am moy Sénégal mo wax ni bép mbell bu yalla dëxëñ ci bir suuf ci té mëna jor a pour askan wi li ci war moy jariñoo ko ba mu dellowaat ci njariñu askan wi ba mu dellowaat ci bëgg bëgg askan wi lool nak limuy laaj moy ñu def ko ci anam bo xamni bi day set sel ànd ak jub ak jubal moo koy doxal ba sénégalais bu ne xam li ci meññ ci wërsëg lan la ak fan la ko senegale yu dugal delloo leen ko moo waral ñi nga xam ne bii dëkk nañ ci Sénégal wala ay doxandéem lañu ndax dëkkuñu fi ñëw fi di ci liggéey ñu tegal leen ay charte yoo xam ne da leen di soññ dañ leen di soññ ci ñu koy liggéey ñu liggéey ko ci anam boo xam ne bii lii dina mën a nekk loolu nag gouvernement du Sénégal fulla ak fayda la ci taxawee di ko saytu di ko xool moo waral yóbbante bi ñu def santaane bi nga xam ne bii président de bi sant nañu ko premier ministre sant ñu ko nañu dox leen ngeen xam liy xew lu ci mën a nekk jubbanti jubbante leen ko ndax li am solo mooy na ñëpp taxaw jubal teg ko ci chart yi nga xam ne bi mooy suñu kenn réew loolu nag li muy jur mooy sénégalais bi xam mais sénégalais bi bokk ci ci liggéey bi mooy contenu local bi ñuy wax sénégalais bi ñi nga xam ne ñoo dende ñoo dànd liggéey boobu ci suuf si mën a am njariñ bi nga xam ne bii moo ciy meññ mais ñu mën ko également delloo Sénégalais yëpp yamul ci loolu entreprise yi fi nekk te mën cee liggéey nañ leen jox xarañ bi ak xam-xam bi ba tax ci at yii di ñëw Sénégal mën a dajjil boppam toggal boppam ay mbellam muy njariñ boppam parce que fu mu toll ni comme mënuñu ko faaw ñu jéggaani ko moo waral foog ñu nangu ko mais njariñ bi mooy ci at yu néew Sénégal mën ko toggal boppam ay doomi réew mu wër ko togg ko ngir njariñ yëpp des Sénégal parce que suñu toll nii ci jamonoy séddoo lañ nekk bay séddoo la te séddoo bi bay séddoo bi daanaka ñun lañ ci am sax demewut noonu mais loolu lépp li ci war ci jubbanti danañ ci taxaw xam ngeen ni monsieur le président euh, monsieur le premier ministre bi tax ñu ne dañuy saytuwaat lépp lu xaati xaatimoon jëm ci wàllu woowu ñu ngi ci xoolaat di ko tafsiraat di ko saytuwaat ngir njariñ yi ci mën a génn ñu xool ndax méngoo naak li Sénégalais yi xaar bu méngoowul ak moom nag danañu woowaat ñëpp woowaat leen ca taatu garab ga fa ñuy waxtaan waxtaane waat ngir jubbante ci war ñu jubbantee ko fa ngir delloo alal wi ak wërsëg ci askan wi